من مزاياه يا ويما ليلى تهمي من مزايا الباوي إن المنايل تهمي من مزايا ويشوفنا والمنايل جرجف بي من مزايا الباوي الحمد لله هذا شيخ ربه خير الوجود له هي أعلى مولاه إن المنايل هو شيخ الخليفة ويشخ فريدا بالمنايل فرد فمي من جانب شيخ الأخوتك ورباني لا خلوة كما أصحابه تصدق مولا يا لله من حاول te am na ndaw ku ndaa yu bëgg a laax bëgg a ñëw ci jumaa ji ne kon ñu déglu ko rek mu barkeelal ñu ñaanal nu yàlla ñu bàyyi ko mu noppalu ji ndax xam nañ ni wérul te ku jur yërëm ku jënd sakkanal sëriñ bi nee na ko jërëjëf si ne tabaarakallaahu nu ngi nuyu mbokki taalibe yi fi daje yépp di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen jotal nuyoo sëriñ bi ak i ziyaaram ak ndokkeelam ne tey bés bi yaatuwul ndax yowmul jumuati la ñu ngi génn léegi ci jumaa ji bu ñu demee préparé dellu si julli si juma kon dañuy fëkk rek sànni lu ñuy sànni daw paree li jumaa ji dafa tolloog loo def at mu nekk mu jig la boo ko fekkee te man ko. boo ko fekkee te man ko. nga defaat ko rekk ndax mu jig la. te ñun ñëpp bésu tey bii. mooy suñu programme bi ñuy tëbboo aw doxalin. mooy suñu programme bi ñuy tëboo aw doxalin. ba déwénati. daje yu bari yi matu. ko. boo xasee di mu kallaf. am xel. am leer. loo dégg benn yoon rek. mën nga cee jëriñu ba déwén. ba faawu sax. te dañu wax ni dafa am benn buur boo xam ni. dafa yilifoon Kajoor. fanweeri at. te mësul paase ak ñoom. su kajoor yépp daje mu génn ne kajoor daje ngeen ñu ni waaw mu ni la ma waxoon daaw loolu laa wax ren dellu ca biir ñun itam li bi waxoon daawaati li nu sëriñ bi waxoon daawaati jéeg daawaataati jéeg daawaataati jéeg depuis maa siina sana. depuis maa yaziidu xamsiina sana. loolu rek la ñuy fàttali. nee na loola rek la ñuy fàttali. li li ñu tax jóg rek ñu bàyyi ko xel. nekk taalibe. yomb na yombul. nu góorgóorlu rek ba di ko bàyyi xel. ba ngay jóge sa ndey ak sa néeg baay dafa am loo façon mooy nekk taalibe moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu toogee yónni benn saxaaba yónni mu dem ñëw mu dem ñëw di ko rendre compte ko rendre lii maa ko moom lii maa ko moom lii yow yaa moom lii yow lañ ko jox lañ ko jox lii man lañ ko jox yonent bi di ko déglu rek ba mu wax ba àggal mu ni ko xëllaa jalasta bayta abika te nga toogoon ci nga toogoon ci sa néeg baay kon kenn dana la jox dara kon kenn dana la jox dara boo toogoon sa néeg baay ñu yónni la ma yónni la nga ñëw. nga ñëw naa ma lii maa ko moom lii lislaam a ko moom. dafa fàtte. kon toujours nañuy bàyyi xel ni. li ñu moom ak li bi moom yëpp. moo ko moom. ci yëfi jàmbur rek ngay xéwlu nag. Uh-huh. Uh-huh. loolu fu nu toll nañ koy bàyyi xel. tey góorgóorlu rekk nag. nee tarbiya. bool. du yenu mooy roy ca la mooy ngay topp ca la muy def. loolu rek kat mooy tarbiya. mag ñi dem ñëpp. mag ñi dem ñëpp. looloo leen yóbbu. looloo leen yóbbu. Cheikhul Hadji Malick radiyallahu anhu mu baax ma ñu àndaloon. am nañu jom jom jom ju day ni. seen tànk du tegu fu tànkam teguwul. seen tànk du tegu fu tànkam teguwul. moom itam mu am jom ju day na. moom itam mu am jom ju day ni. tànkam du tegu fu tànku yonent bi tegu. tànkam du tegu fu tànku yonent bi teguwul woon. la yonent bi waxoon. la yonent bi waxoon. ca xajjatul widaa. ca xajjatul widaa. su ko neexoon wax ko. su ko neexoon wax ko. allahumma allahumma hal ballaxtu hal ballaxtu xool asamaan xool asamaan yàlla yàlla ndax li nga ma santoon def naa ko ndax li nga ma santoon def naa ko xam na ni lañ ko santoon def na ko boo ko xam na ni lañ ko santoon def na ko moom itam bu ko neexoon moom itam bu ko neexoon mu nu yonent beeg cheikh mu nu yonent beeg cheikh ndax li ngeen ma santoon def naa ko ndax li ngeen ma santoon def naa ko def na ko def na ko lay def na ko ci biir feebaram ci biir feebaram kenn ci muqaddamam yi. kenn ci muqaddamam yi. ma Birane Ndiaye. ma Birane Ndiaye. dafa ñëw di ko seet. dafa ñëw di ko seet. mag la. mag la. gis ko. gis ko. ni mu tëddee. ni mu tëddee. xam na ni kii. xam na ni kii. ci yoonu tàggoo la nekk. ci yoonu tàggoo la nekk. mu ne ko sayidul xaw mi. mu ni ko sayidul xaw dénkunu. dénkunu. mu ni ko aa ah. téyel ma sama përëg. téyel ma sama përëg. téyel ma ko jël. téel ma ko jëkk. mu ti ko. mu ñaari baaraam yi daje. mu ni ko hakaza arattu. nii nii laa ko bëggee woon. di dem ca yàlla. di dem ca yàlla. ma lu ma koy lay. Mm-hmm. ni ko. Ah, ndénkaane li day. xam naa du passé. wa ma ataakumu rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu mu ngoog loolu rek la ko wax mais doy na ndénkaane li ñu yonent bi indil nañu ko téye li mu nu tere ñu bàyyi ko mu jeex su ko defee. yéen ñii di njabootu xadra bi. yéen ñii di njabootu xadra bi. seeni morom rek kay jam xadara bi léegi. seeni moroom rek ay jam xadara bi léegi. déglu naa barki démb ci rajo. mais déglu naa barki bi ci rajo. koo xam ne la mu wax da koo ñemewul. koo xam ne la mu wax da koo ñemewul. mooy alhaji Malick nekkul ci dëgg. mooy alhaji Malick nekkul ci dëgg. ñemewu ko ñemewu koo wax nag. waaye waxam lépp lool. waaye waxam lépp lool la. lu ñuy jëfee ci xadara bi rek. ndax lu ñuy jëfee ci xadara bi rek. jam na ko jam na ko. mbaamu fala mbaamu fala fala. basmala ak basmala ak. sadlul yedeeg sadlul yedeeg. lu ci ne wax na ci Serigne ko tontu. Serigne Mansour du ko tontu. yéen a ko war tontu. dëgg la yéen la toll. ndax yéen la tolloon. mas ci Barham Diop bis. am na ñu jóge fii ci Sénégal teew fa. am na ñu jóge fii ci Sénégal teew fa. am na benn suñuy wax baabu ku say-say. am na ngóor suñuy wax baabu ku say-say. ba mu taxawee lu mu yëkkul Sénégal dafa ko fàtte. mu taxawee lu mu yëkkul Serigne Sénégal fàtte. lu mu yekkul tariqa yi daf ko fàtte. lu ma defaru pour tontu. ma defaru pour tontu. Barham Diop yónnee ma benn not fa mu toog. ma benn not fa mu toog. ni ma waroo ko tontu noo ko war a tontu. ni a tontu. ndax nun la tollal garaat. <laughs> moo ko tontu keroog. yéen itam. <laughs> waa ji de li wax garaaw waa ji de li wax garaaw la. du tontu de. du tontu de. jërëjëf leen téere yi. ubbi yi. jël ci lu ngeen ko tonto jël ci lu ngeen ko tontoo. fi Maodo dëgg. fi Maodo dëgg. bay wax bismillahi rahmaani ah. rahim. bay wax bismillahi rahmaani rahim. ci julli ci julli. te doo ko def xuloo te doo ko def xuloo sa waxtaan rek. sa waxtaan rek. bu ko laajee. bu ko laajee. joxeel preuve ba joxeel preuve ba. dëgg la dëgg la jërëjëf. jërëjëf wax naa ci ba tey damaa déglu waaye wax naa ci ba tey. kon nag rek sëriñ bi sa taalibe Oustaz Mbaye Ndiaye bu góor gi Ibrahima Ndiaye teelu ko tontu na ci def na ci kaset bu mat deux heures de temps. dinaa la ko indi. incha allah yooyu yëpp nag. mais yooyu yëpp nag. da ngeen koy bàyyi xel. da ngeen koy bàyyi xel. yéenay défenseur xadara bi. xam ni yéenay défenseur xadara bi. fi nekk kat. fi nekk kat. ñëpp bokk ko bokk. Mhm. moo fi dajale. moo nu fi dajale. bu ko ñëpp bokkul bu ko ñëpp bokkuloon. lu nu fiy def fiy def. waaye ñëpp bokk ko bokk. su ko defee yu demee noonu rek ngeen di ko bàyyi xel. su ko defee yu demee noonu rek ngeen di ko bàyyi xel. waaye nag ngeen demee ko xel nag. waaye nag ngeen demee ko xel nag. ndax Serigne Babacar Sy. radiyallahu anhu ku yéeme toog ca. dañoo toog ca. Kaolack Kaolack. aji xari mbeng bu Thiès. aji xari mbeng bu Thiès. laaj ko ko. ni ko teg yi ñuy teg pour dem Makka. ko teg yi teg pour dem Makka. ndax dagan na. ndax dagan na. mu ni ma nee ko. nee ko. su fekkee day laaj lu mu xam de. su fekkee day laaj lu mu xam de. mën naa koo tontu. mën naa koo tontu. su fekkee day laaj lu mu xuloo nag. su fekkee day laaj lu mu xuloo nag. xaw xawma ne ko dama bëgg xam dem ci lu sell rek. mu ni déedéet ko dama bëgg a dem ci lu sell rek. laajuma lu lu ma xuloo. mu ni man nee mu ni man seet leneen. yem ca ni pat. deful dara. commenté wul deful dara. ñu toog ba mu yàgg. waay bu jógee Wakaam sant Jaay. benn waay bu jógee Wakaam. sant Jaay. ñëw laaj ko ko. laaj ko ko. su dalee sa xel rek. mu ni ko ah su dalee sa xel rek. jàpp njàmburam. beneen waay sant Njaay jóge Thiès. waay sant Njaay jóge Thiès. laaj ko ko. mu ni ah. gis naa nit ñi xewal xewal ko de. yam foofa ba mu dugg see ci biir maree ni ko waa góor gi benn laaj ñetti nit laaj la ko laaj ñetti nit laaj la ko te kenn bokku ceeg sa morom tontu sa morom tontu ah, mu ne ma ah waaw doom jamono dafa mat xel ndax ñu bari aji nañ ci màkka ndax ñu bari aji nañ ci màkka ñu baree ngi ciy waaja aji màkka soo taxawee ni dafa xaraam. soo taxawee ni dafa xaraam. yaa tas réew mi yaa tas réew mi. mu ni taalibe yi def ci am ñu forox lammi. ni taalibe yi def ci am ñu forox lammi. daa gis ñu génn gox bu ne ñu taxaw fa. daa gis ñu génn gox bu ne ñu taxaw fa. ni Serigne Babacar nee na. ni Serigne nee na. cotiser jox kenn mu aji makka. cotiser jox kenn mu aji makka. xaraam na. keneen ku ci aji woon. keneen ku ci aji woon. ni waay toppal fële waay. ni waay toppal fële waay. jàng nit ñi. jàng nit ñi. mu ne ma ko indi coow. yaa indi. te mën nañ cee dem ba ay kurpañ tàkkanti. te mën nañ cee dem ba ay kurpañ tàkkanti. Ah. fekk yaa tas réew mi. te comme àjjana safara. mu ne te comme àjjana ak safara. nekkul sama loxo. ci sama loxo. te yërmande yàlla yaatu na. yàlla yaatu na. nañ bàyyi noonu rek. dégg jamono. dégg su ko defee lu nekk xel. moo koy jiite nag. waaye ngeen gën a takku rek. gën a aar xadara bi rek. gën a jàppale sëriñ bi rek. ndax gat. daa ñu dëgg ci yow yàpp sa kilifa daa ñu dëgg ci yow wekk ko mu ngi aju ci sa comportement rek bu ko defee yooyu yëpp ñu bàyyi ko xel yëpp ñu ñun ñëpp njaboot lañu moom mooy kilifa gi nu mu bëggee rek ñu doxalee noonu. donte doxalul woon ak sa bëgg-bëgg sax. yow sa chance mooy ànd ca. ndax Serigne Babacar. moo ko waxoon soxna Faat Fall Penda. radiyallahu anha ni ko. kaay ma wax la ni ñuy ànd ak nitu yàlla. lu mu santaane rek. bu la ca kenn jëkk. bu la ca kenn man. xanaa boo taxawee ko ndax boo taxawee seetaan it. ñëpp danañ la romb dugg ci. ñëpp danañu la romb dugg ci. nga des gannaaw te fekk yaa ko def sa bopp. nga des gannaaw te fekk yaa def sa bopp. kon nag lool rek la bés bi laaj tey. loolu la sëriñ bi nii itam ñu sànni leen ko rek. ngeen dollee taxaw rek dollee góorgóorlu gën a am itte ci ñi fi ñëw ku mën ku ñëw te man koo gis xayrul ñëw te mënu ko gisit na xolam sedd na yóbbaale xol bu sedd ku ñëw te mënu koo gisit na yóbbaale xol bu set taaj ko taaj ko ndox mu sedd daw wuti ndox mu sedd jox ko mu naan. wala bu saafara nekkoon sa poche sax. bu saafara nekkoon sa poche sax. bul daw bul ne bul tàyyee daw jëndal ko butéeyu koka wala bu golden yaa xam. jox ko mu naan rek. jox ko mu naan rek. ni ko sëriñ bi day dafa ubbiwul. ndax ngant. ndax ngant. ko defee mu yóbbaale xol bu bu ko defee mu yóbbaale xol bu féex. laaj la tontu. waaye ñëw di laaj sëriñ bi kenn du la tontu. wala kala romb sax day xaw a felaale sa loxo. wala kala romb sax day xaw a felaale sa loxo. du la wax lu leer. la wax lu leer. bu ëllëgee doo sawar a ñëw. bu ëllëgee doo sawar a ñëw. la. waaw. waaye soo ko defee noonu. waaye soo ko defee noonu. bu ëllëgee mu dellu si. taseeg mu am chance su mën a gis sëriñ bi. taseeg mu am chance su mën a gis sëriñ bi. ah man dañoo naa ah, man dañoo naa fi keroog gisuma la. Eh, ngóor si ma dajal day góor la waaye ngóor si ma dajal day góor la lool. ku am itte la. ku ngeen am itte. bu leen am itte rek ci ñi di sarax ñaar bu leen am itte rek ci ñi leen di sarax ñaar dërëm. ki ko am ak ki ko amul yëpp yamale leen leen. ndax sëriñ bi rek a tax ngeen di def. dëgg la. du nit ki. sëriñ bee tax ngeen di def. sëriñ bee ngeen di def. te moom bés ba mu ngi leen di jëriñ. te moom bés ba mu ngi leen di jëriñ. li ngeen di am lépp ci barkeem la. li ngeen di a lépp ci barkeem dunyan wa uxra naxwahu qad yaati waaw li ngeen am yëpp ci barkeema bi ci des bu leen nangoo doye ci kanamu benn borom xaalis bu leen nangoo doye ci kanamu benn borom xaalis yiwe bu amee yiwe dindi dara jox bu amee yiwe dindi dara jox baax na. bu ko amul bu ko amul. c'est son affaire c'est son affaire. amul xol ba. ma. di nga am leneen ci barki sëriñ bi. jërëjëf jërëjëf. mais dafa am bés. mu wàcc. Baye Allé Fatim tooñ ko. Baye ko. ni ko maag Serigne Moussa ak Serigne ni ngi la doon tooñ. ñu ngi la doon ah, la. la doon jëw. ne ko ñu ngi la doon jëw. mu ni mbaa jàmm ngeen ma doon jëwe. mu ni ngeen ma doon jëwe. mu ni. Ah, dañoo wax maak Serigne Moussa mi. dañoo wax maak Serigne Moussa mi. boo dul laaj addi dañoo wax maak Serigne mu mi boo dul laaj addi yi. nga bindal nu leetar boog nun nu dem laaj addi ya. nga mu muuñ. daawul xaqtaay. day muuñ rek mu ne ah xam naa bu ma génnoon di laaj addiya day dana duun de waaye dama xamul bu ko defee ba noppi bu ma ñëwee bu ma ko defee ba noppi bu ma ñëwee xaw ma lu may wax Seydil Hadji xaw ma daal ni yéen sax day occasion la. occasion la. tey tey. ma wax ak yéen. ma wax ak yéen. xam ngeen lu ma bëgg. xam ngeen lu ma bëgg. boo génnee kër Matar Ndak. boo génnee kër Matar Ndak. lemal Tiwaawan def ci sa poche. lemal Tiwaawan def ci sa poche. bu kenn xam ni fi nga jógee. ba ñibbisi. mu ni mbokk moo xam ne itam léeg-léeg mu ziar si. mu ni mbokk moo xam ni itam léeg mu ziar si. te ku mu dajeel ci yéen dindi téeméeram sarax la. te ku mu dajeel ci yéen dindi téeméeram sarax la. dem gane ji ko ci mbaa doola la bokk. nag boo ci dëkk ba waaye nag boo demee ca dëkk ba mu dëkk. rafet na nga jaar ci këram nuyu ko. rafet na nga jaar ci këram nuyu ko. su la invité añ wala reer it. su la invité añ wala reer demal demal. waaye boo demee nag. waaye demee nag. xam nooy reere wala nooy añee. na nga xam nooy reere wala nooy añee. bu fa gën a gaaw tibb bu fa gën a rëy. bu fa gën a gaaw tibb. bu fa bu ko fa gën a rëy. mu ni bu fa lekkit. mu ni bu fa lekkit. lu ñu naan ku sukkoon fi. lu ñu naan moo ku sukkoon fi. bu fekkee ni. mu ni bu fekkee ni. da ngeen a dem ci kër. da ngeen a dem ci kër. dal fa. dal fa. ñu dalal leen. ñu dalal leen. ngir Seydil Hadji Malick. ngir Seydil Hadji Malick. indil la añ. yow rek. yow rek. bu ko caxat caxatee. bu ko caxat caxatee. lekk la la méng. lekk lala la méng. la nga bàyyi ko ndax bu keneen ñëwee mën ca lekk. la la méngul nga bàyyi ko ndax bu keneen ñëwee. civilisé. loolu nag yéen ñëpp ngeen bàyyi ko xel. di toppatoo gan ñi bu baax di leen jox itte. sëriñ boo xam ne bés bu nga am fukki junni ci barkeem. sëriñ boo xam ne bés bu nga am fukki junni ci barkeem. te néegoo dindi cent franc jëndale ko gan limonade jox ko. te néegoo dindi cent franc jëndale ko limo limonade jox gan. ci mbaadoola la ci mbaadoola la bokk. dëgg la ngeen te bés bu nekk ngeen am téeméeri junni. ci barke Serigne bi nag ci barke Serigne bi nag. kon teralal ko ganam ci 100 francs. kon leen ko iñaane. waaye waru leen iñaane. dëgg la dëgg la jërëjëf. loolu rek la. ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. bàyyi xel li nu fi indi rek. tarbiya ak defaru te am na fi nag te am na fi am na fi de moo ko waxoon fu dara dul jeexe ku fa nekk ba jóge fa te amoo dara nekk ba jóge fa te amoo dara yaa ko wutul ko wutul te ne kër gi yiw du fi jeex seeni borom nañ ko ba indi ko wut nañ ko ba indi ko Seydil Hadji Malick itam. Seydil Hadji Malick itam. lambaatuwul. dafa daj. xam ni nii la. xam ni nii la. mu jëfanteeg Cheikh Ahmed Tidiane. waxtaan naa ak sëtu Cheikh bu waxtaan naa ak sëtu Cheikh bu yàggul. mu ni ma dañuy soow rek. ñetti xalifa dong la am. ñetti xalifa dong la am. yu wér yu wér. ñi ci des ñëpp ay muqaddam lañu. ñi ci des ñëpp ay muqaddam lañ. ak boromi xam-xam. ak boromi xam-xam. liggéeyal xadaraam liggéeyal xadaraam. ba am cër ba am cër. waaye xalifa pire. waaye xalifa pire. ñett la ñett la. kenn ka kenn ka. Ali Harazim Barad. Ali Harazim Barad. ka ca des ka ca des. Mouhamadul Hafiz. Mouhamadul Hafiz. Shingiti Ashingiti. ka leen ñetteel ka leen ñetteel. mooy Seydi Hadji Malick wax na dëgg nag kenn ku ci nekk am nga foo jaar ak cheikh eh, cheikh alxaaji abdul aziz radiallahu anhu moo ma wax ni ma dama nekk sama kër ca gël tape ni ma kaay wuyu sëñ Babacar ñu ne ma kaay wuyu Serigne Babacar Sy ca Rue Thiers mu ni ma maa ngi tiita tiit ni man lu ma def mbaadu dañ ma boole góor gi nee ba ma ñëwee néeg baa ngi fees del mu daal ni may leen ma may leen ma maa woolu woon Abdoul Aziz ne nit ñëpp génn ba mu des maag moom dong mu tëj bunt bi ni ma Abdoul Aziz dafa am lu neex lu ma lay wax yow dong laa koy wax nag yàlla wone la na maag Cheikh Ahmed Tidiane bi la ma neex nag ca gise ba daf ma jox satalaan ni naa ko sottil mu jàpp. ma xam ni loolooy sama tarbiya. lu neex loolu nag yow rekk laa koy wax. yàgg naa ni xaritam. ne kon nag loolu ku ko am nag yi ci des yëpp amatul solo. ne yi di soow matu ko su ko defee yéen ngeen góorgóorlu rek. toujours di bàyyi rek mission xadara bi xel. di bàyyi rek mission xadara bi xel. di ca def seen kéemtalaay kartan. te nu jëm fa nu jëm rek. yàlla na nu fa yegg. amiin. yàlla nañ fi dajawaat déwén te déwén dàqal nu ren sëriñ bi yàlla na ko fi yàlla bay may ko wér ba mu àggale mission ni mu ko bëggee ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa nun tam yàlla bàyyi nu ci gannaawam rek nu topp ci rek moom yomb na toppe yomb na njiite jafe jafe waaye toppe kay kañ dem rek ma topp sa gannaaw yomb na ne su ko defee ñu jàpp ci loolu rek ñu ngi siyaar ñëpp ci iid ji nag ne xam naa ndaw kundaay nag saalit nañu ba tàyyi premier koor gi mu ma man nag premier koor gi mu ma fekk Paris. Um ne maa ngi um bésu àllarba. yéen ngeen um bésu alxames. yéen ngeen um bésu alxames. démb ma ne ah. démb ma ne ah. ba xam ñun ñu am fanweeri fan tey. ba xam ñun ñu am fanweeri fan tey. ñuy dogee ëllëg bopp. nu ñuy dogee ëllëg bopp. nu ñuy wéyee ëllëg. wala nu ñuy wéyee ëllëg. jaxasoo woon na de. waaye yàlla faf na def sutura. kenn du ndax kenn du war fanweeri fan ak benn. te nit ñi woor ngay lekk. déedéet. da dog kay. te jàpp nag ànd ak ñoom. bu ñu xëyee wari nga wari. ah loolooy atte. <laughs> jërëjëf jërëjëf ah. si. ne boo am war a am fanweeri fan ak benn te nit ñi war a woor ne doo wari dangay dog jàpp ànd ak ñoom bu ñu waree nga ànd ak ñoom wari <laughs> jërëjëf si. sew sew ne su ko defee kon tabarakallahu dañoo jege Paris. Paris. ñu ngi dog. 9h30 ci guddi. Maroc. Maroc. ñu ngi dog. ñu ngi dog. 6h30. 6h30. ñu jóge Paris ca Takusaan. ñu jóge Paris ca Takusaan. yegg si si Maroc Takusaan. ñaari Takusaan ñaari Takusaan. ci benn bés. la defe defee ndax ca aéroport ba la ñu defee jamu bayna zuhri wal asri ne bayna zuhri wal asri tisbaar ak takkusaan ñu boole ko julli foofu yéeg ci avion bi yéeg ci avion bi booba takkusaan a ngi waaj jot sax waaye avion daaw si Maroc waaye avion bi naaw ba teer si Maroc te Maroc ñu ngi ci takkusaan ba tey te ñu ngi ci takkusaan ba tey waaye Paris ga ñu ume woon waaye Paris ga ñu ume woon ñoom gee jot na ñoom gee jot na fa. gaay ni ma nu ñuy def nag. gaay ni ma nu ñuy def nag. leen ànd waa Maroc ba ñu dog. yëf yi yëf yi ko defee nag kon fa tabaarakallah nekkuñu fi woon jël benn koor gi yëpp. nekkuñu fi woon jël benn koor gi ndekete ñoom seen mbir du noonu. boo xasee dugg seen loxo amatoo choix. boo xasee dugg seen loxo nag amatoo choix. ñoom ñoo la naan nii ngay defee rek. faf nag mu téye ma fa 28 jours. lu ma ci man. waaye baax na si. walaay wér leen rek si Mali. téeméer at ci kanam yàgg sa mag yi baax. ne su ko defee loola taxoon umewunu fi. na dem naa ne yàlla def na. dem naa Paris ba ñibbisi bët gisuma. du taalibe du mbokk du xarit. néeg ba ma dal ak hôpital rek. ñëw jàpp sama njàmbur. xam naa ba ma ne ëllëg lay ñibbisi dem naa julli ji ca jumaa ja de. ndax. nuyonteeg yenn mbokk ya fa nekk. ak it fàttali leen ni jumaa ji ci la ñu bokk. ndax alxaaji Abdul Hamid Kan moo teg xeeru jumaay Paris. 1922 ci ndigalu Seydil Hadji Malick. 1922 ci ndigalu Seydil Hadji Malick. ndax dañ ko sant Seydil Hadji Malick fekk ko mu feebar. feebar boobu ci la dem sax. mu ne leen ah sama yaram mayu ma ko. ñu ne ko kon nag tànnal ku la ci sa njaboot. mu ne comme Alxaaji Abdou Kan demoon na fa. 14 18 demoon na Paris. ndax 14 demoon na Paris. ci ndigalu Seydil Xaaji Maalik. mu ni comme Abdou mu ni comme Abdou Kan demoon na fa. na dellu. moo tax sax bi Maodo di génn àdduna fekk ko. moo tax bi Maodo di génn àdduna fekk ko fi. bari la ko fekk. moo teg xeeru jumaa ja ci ndigalu Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu. yooyu yëpp ma fàttali leen ko nag. ñoom sénégalais ya fa nekk. ñoom sénégalais ya fa nekk. ni leen ci ngeen bokk de. bu leen kenn xot di sànni lànk leen ñëw nag fii am ñetti fan it. ñëw dem Maroc. dem Maroc. maak Mansour Serigne bu Cheikh Hadj Abdoul Aziz ñoo ànd. falaa ko bàyyi sax. dañu bëggoon téye ma laylatul qadri fa comme daaw. ndax dañ ma bëggoon a téye ma laylatul qadri fa comme daaw. man leen nag non loolu moom mënuma ko ren. def naa ko daaw. def naa ko daaw. ngir bëggal leen. ngir bëggal leen. fii haadihil marra bii yoon daal jéggal leen ma. ne ma ni sëñ Mansour yow des fi. fekke laylatul qadri. fekke laylatul qadri. biir setee nga ñibbisi wala bi ca gannaaw wala gannaaw ëllëg sa. waaw. nu fi ñun ñëpp. ne ndax sëñ Mansour ci turu xalifa bi la demee woon. man ma dem ci turu fédération des associations islamiques du Sénégal bii ma jiite. ñun ñaar ñoo fa représenté woon xadra bi. waaye dara ñaawu fa nag allah ñu wax leen ni dem nañu ci jàmm ñëw ci jàmm yàlla na yàlla yàggal jàmm sëriñ bi Cheikh Seyd Mouhamadul Mansour yàlla na ko yàlla defal jàmmi biir ak jàmmi biti amiin yaa rabbi mu dund fi lu yàgg yàgg na. amiin la Serigne Fallou waxoon rek dañ ko ni diw de dafa bëgg nga jóge fi waay mu ni aha ñu ne ko waaw waaw mu ni dem leen wool ko waay ñu dem woo ko mu ni ko kaay gunge ma waay damay wër jumaa ji xool ko te yow laa taamu nga gunge ñu ànd. mu wër a wër ba xolam sedd ñu ànd ñëw ba ci mu jox ko loxo ni ko gis nga ko liggéey ko ba mu sotti coleet julli fu lu yàgg nag door fee jóge na waaw kay mu nga waay nuyu ma waat rek <laughs> ne xalifa bi na fi toog lu yàgg a yàgg moom itam ba def lim bëgg def lépp la ca des nag yàlla xam léegi benn waaye def ma ni yàlla nga dund téeméeri at ak juróom fukk ma ne ko waaw wax ñaar téeméer rek ak dëgg yàlla ñun ñëpp ñu ko. ma ne ko Alaaji Ba de. ñaar fukk. ndax bu yàlla dee wàññi wàññi ñaar yi ñaar fukk mu des téeméer. mais wallaay ndeysaan. yàlla na ko fi yàlla bàyyi ma ndax li ñuy doyee kilifa mooy leret te loolu nag la ko yàlla binde nag mën naa boot lool tabaarakallah kon nun itam li sëriñ Babacar daan wax. boo amee kilifa te amul béjjénu gannaaw. boo góor kilifa te yow itam bañ a am béjjénu biir. ndax nga mën a bootu nag mu jeex tàkk. ko defee kon ngeen bàyyi xel rek noonu. ittewoo kër gi ittewoo gan ñi. ñi. ñëw ku fi ñëw te man koo gis na ko gis. ku ko mënul gis te Serigne Cheikh nekk fi woo ko na ko gis. wala ku mën a doon ci xale yi. kooka jógee fi xol bu féex. ndax nit ñi nag dañoo xaw a naqari deret. da ngay gis ku ñëw du taxaw sax lu yàgg. da ngay gis ku ñëw du taxaw sax lu yàgg. daal di gedd dem. daal di gedd dem. nga dajeeg moom ca Thiès wala Pout. nga dajeeg moom ca Thiès wala Pout. ah yoon di ñëwoon naa ci kër gi seet sëriñ bi. mu ne ah man de ñëwoon naa ci kër gi seet sëriñ bi. waaye ah, gisuma kenn. waaye gisuma kenn. ma daal di dem. ndax téléphoné woon nga ni ko maa ngi ñëw. ma ni ko waaw ndax téléphoné woon nga ko ni ko maa ngi ñëw. mu ni déedéet. ma ni ko kon nag. loo am rek jëlal. dañoo xamul ni. or dañoo xamul ni. Serigne Babacar Sy. jamonoom benn nag. la Serigne Cheikh waxoon rek. ne benn waaye ko bind na. ni ko sa baay daawul tëj buntam. ni ko sa baay daawul tëj buntam. mu bind not ni ko dëkkul woon waaw ku fa sa bunt nag. Eh, yaa ne Jibril Gueye Samba Ngoone nee na. boo demee ci dëkk. boo demee ci dëkk. ñëpp taxaw di saw. ñëpp taxaw di saw. bul jonkan bul jonkan. taxawal saw taxawal saw. ne boo jonkane. dañ lay tooyal de. sa sa sër sobe. say sër sobe. comme ñëpp dañoo taxaw di saw. taxawal yow tam saw. waaye gox bu ñëpp tëj seen bunt. ñëpp tëj seen bunt. boo ubbee def musiba de. yaa tooñ. moo tax mu ne ko Serigne Babacar dëkkul woon Relais. te Relais gii ma dëkk nag ñëpp dañuy tëj seen bunt. ne su ko defee am ci ñu naqari deret nag. te ñàkk sago. te xamuñu nu ñuy ñuy seete kilifa. dañuy daal di yàkkamti rek gedd. dañuy daal di yàkkamti rek gedd. wax sax lu leen gaañ. wax sax lu leen gaañ. ndax yaree di ko rek. ndax yaree di mag moo xam ne néewoo ko maa ngi ñëw. mag ko maa ngi ñëw. fixé lu la rendez-vous. fixé lu la rendez ci ban xaal nga ko fekk. xamoo ci ban xaal nga ko fekk. rek gaawtu gis léegi rek. nga ñëw rek ni dama ko bëgg a gis léegi rek. su ma ko gisul rek daal di wax li may wax dem sama yoon. ma ko gisul rek daal di wax li may wax dem sama yoon. sama mer sama mer. waaw. te ñu bari noonu la ñuy def. xamuñu nu ñuy seete kilifa. xamuñu nu ñuy seete nitu yàlla. seen bakkan rek la ñuy seen bakkan rek te kenn du jiital sa bakkan. su la waaye su la joxee rendez-vous nag. nga ñëw gisoo. nga ñëw gisoo ko. sañ nga révolté. sañ nga révolté. waaye du fekkee yaa jógal sa bopp. yëgoowu leen. yëgoowu leen. xamoo ci lan la ne. xamoo ci lan la ne. ci lan nga ko fekk. xamoo ci lan nga ko fekk. boo ko gisul. boo ko gisul. tooñu la. ne su ko defee kon nag noonu rek la. waxtu waa ngi ñettam. waxtu waa ngi ñettam de. midi jot na. ba tegal. sept dix minutes. nee mu ngoog boog. kon nu ñaan. kenn ku ne wax sa yàlla na nga ko teewe déwén. ko defee. ñu yeewee ko rek.

waaye baaxantal wàññiwul dara li may def rek tey ànd ak ñun taalibe yëpp sant la sant leen sant xalifa bu baax bi ak rakk topp ci moom yëpp di sant Serigne Cheikh jiital ci Serigne Cheikh teg ci yow mii ak nit mënta am ndax nit mënta am lu ëpp. am kilifa. am kilifa. ga jub. te am kilifa. te am kilifa. mu jub ba noppi. mu diiñ. diiñ. te loolu yombul. te loolu fa tabaarakallahu. te fa tabaarakallahu. yàlla dolli leen ko. yàlla na yàlla dolli ko. waaye am na fi. néew na. néew na. loo dajeeg nit. loo dajeeg nit. ñi ëpp ci ñi ñuy dajeel. dañ leen di tagg. dañu leen di tagg. di wax ci yéen ay mandarga yu rafet. di wax ci yéen ay màndarga yu rafet. ay jikko yu rafet. ay jikko yu rafet. ba ca ëpp doole nag. ba ca ëpp doole nag. te ñëpp gën koo soxla léegi. te ñëpp gën koo soxla léegi. muy ak tab. mooy ak tab. te fa tabaarakallaahu. te fa tabaarakallaahu. seere nañ ñun ñëpp ni. am na fi. am kilifa goo xam ni. am kilifa goo xam ni. jam ko ci diine. jam ko ci diine. fa tabaarakallaahu. yombul. barki démb. barki démb. benn kër benn kër wëllëre. dafa toog di waxtaan. dafa toog di waxtaan. ma nekk fa ak moom. ma nekk fa ak moom. ak seen rak. ak seen rak. Abdoul Aziz Sall. bu Baye Makhtar Sall. bu Baye Makhtar Sall. ñu nekk ci seen maam Seydil Hadji Malick. ñu nekk ci seen maam Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu. waaye Abdou Sall mel ni dafa daanu xaal. waaye Abdou Sall mel ni dafa daanu xaal. te yomb ko nag. te yomb ko nag. ni xalifa. ni xalifa. mën na maa waat ci yàlla ni. mën na maa waat ci yàlla ni. Seydil Hadji Malick. Seydil Hadji Malick. ko neexoon. bu ko neexoon. bëri yëfam. bëri yëfam. du ànd ak kenn. du ànd ak kenn. Seydil Hadji Malick. Seydil Hadji Malick. yonent bi rek ko mat sëriñ. yonent bi rek ko mat sëriñ. mu doon wax boo xam ni. mu doon wax boo xam ni. ñun dañu mujj sax daanu xaal ñun. ñun dañoo mujj sax daanu xaal ñun ñëpp. ca waxtaan wa ca waxtaan wa. mu ni. mu ni. Ah, yonent bi. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. li muy rëy rëy. li muy rëy rëy. zawiya yim fi bàyyi. zawiya yim fi bàyyi. taxu koo bari. taxu koo bari. surtout jamonoom. surtout jamonoom. Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif it. Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif it. zawiya yim fi bàyyi. zawiya yim fi bàyyi. taxu koo bari. taxu koo bari. mu dafa yëg ci yaramam tuuti feebar. mu ni dafa yëg ci yaramam tuuti feebar. day dem ndar. mu ni day dem ndar. lu fa tuuti. noppalu fa tuuti. nee na ci nee na ci xamul lu muy noppalu ci hôtel bi. xamul lu muy noppalu ci hôtel bi. ndax astaghfirullah al azim alladi la ilaha ndax astaghfirullah al azim alladi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum ji. nee na mu daa nee na ma daanu xaal. nee ma daanu xaal. nee na ma wut ma wut benn chauffeur. nee ma wut benn chauffeur. ni ko damaa bëgg tey. ni ko damaa bëgg tey. ni ma daanoo xaal ci ndar. ni ma daanoo xaal ci ndar. nga yóbbu ma ci jumaa yi yëpp. nga yóbbu ma ci jumaa yëpp. ak ci jàkk yëpp ak ci jàkk yëpp ma soog a ñibbi Tiwaawan ma soog a ñibbi Tiwaawan nee na ñu wër jumaa yi nee ñu wër jumaa yi ñaar fukki yeeg nangam tegal nee ñaar fukki yeeg nangam tegal wala fukki yeeg lu jege ñaar fukk wala lu jege ñaar fukk ma ne ko jàkk yi nag ma ne ko jàkk yi nag mun mënoo ko tey de mun ma mënuma koo lim de mat na juróom benn fukk ak nangam mat na juróom benn fukk ak nangam loolu loolu doy na ci sunu wayjur doy na ci sunu wayjur ci lépp jóge ci yow. ci lépp jóge ci yow. nga teg ko ci xaddis ba. nga teg ko ci xaddis ba. man sanna sunnatan xasanatan. man sanna sunnatan xasanatan. falahu. falahu. ajruha ajruha. wa ajru man amila biha. te lépp mu jóge ci moom. mu jóge ci moom. kon doy na ci ñun fierté. kon doy na ci ñun fierté. kon. kon lu ñu def ñun. lu ñu def ñun. lu dul jéem baax rek. lu dul jéem a baax rek. jéem a baax ko gën ci jéem baax ko gën ci ñun. loola. loola. mosuma ma dal man. nga yónni ma yow. nga yónni ma yow. Kédougou. Kédougou. ca jumaa ju ja. ca jumaa ju fekk nga dem Banjul. fekk nga dem Banjul. ci sa kii bii nga bokk. ne ci sa fédération. islamique bii nga bokk ligue islamique mondiale bii nga bokk. dem. nee ma dem. ànd ak alxaaji Momadou al ànd ak alxaaji Momadou Guèye. Mansour. Mansour. ak Mbaye Niang. ak nga ma booleel. nga ma booleel. ak Abdou fekk ma kër soose. ñu fekk ma kër soose. ma jaare noonu dem. ma jaare noonu dem. ma demee jumaa ji. ne bi ma demee ci jumaa ji. iliman bi ñëw. iliman bi ñëw. taxaw taxaw. rafet lool. rafet lool. dippal fuuta. dippal fuuta. set wecc. set wecc. civilisé lool. civilisé lool. bi mu xutbaa. bi mu xutbaa. lammiñ wi. lammiñ arabe lool. arabe lool. ma nitat ci sama ma ngi sër ci sama xol. ni kii daal ni kii daal. yàlla na bokk ci Seydil Hadji na bokk ci Seydil Hadji Malick. mu julli julli gi. mu julli julli ma gën a daanu man xaal ma gën a daanu man xaal. naan kii daal ci xel mi rek naan ci sama xol rek. kii daal na bokk ci Seydil Hadji Malick. kii daal yàlla na bokk ci Seydil Hadji Malick. ñu sëlmal ñu sëlmal. ñu ne nañ jox. ñu ne jox. ki dikkal laaj Serigne Abdoul si Al Amin. ki dikkal Serigne Abdoul si Al Amin. dikkal waa Tiwaawan. dikkal waa mu sànni ay kaddu. sànni ay kaddu. ndekete bi may sànni kaddu. ndekete bi may sànni kàddu moom it moom it. am na lu dugg ci xolam. am na lu dugg ci xolam. mu ne gan gii daal. mu ne gan gii daal. lu mu yàkkamti yàkkamti. lu mu yàkkamti yàkkamti. dinaa wax ilimaan yi. dinaa wax ilimaan yi. ak ñi ko dalal ko dalal. ñu indi ko sama kër. indi ko sama kër. Ah, ba ma àggee ci waxtaan wi. ba ma àggee ci waxtaan wi. mu wax loolu. mu wax loolu. ki ko doon jottali. ki ko doon jottali. mu wax yi. mu wax ko ilimaan yi. ma nit ma jóg taxaw ma nit ma jóg taxaw ndeke ndekete hadis boo gis ni ndekete hadis boo gis boo doxee tuuti dajeeg moom boo doxee tuuti dajeeg moom ci alqulubu tatara ci alqulubu tatara ndekete xolom xolom nee ndeke xolom mi ngi may gis mu ngi may gis sama xolom koy gis sama xolom koy gis ma wax ko nag ni ma ko soppe nee ma wax ko nag ni ma ko soppe mu ni ma boo gisee ma ne la na nga ñëw mu ni ma boo gisee ma ne la na nga ñëw sama kër sama kër li may yëg ni Tiwaawan nga jóge li may yëg ni nga jóge te jóge ci kër Seydi Hadji Malick te jóge ci kër Seydil man ca laa bokk man ca laa bokk sëriñ bi ma jox sëriñ bi ma ko jox alhaji Malick ko jox tuuti ma xam tuuti ma xam <laughs> sëriñ bi nee na jumaa jooju la ma ca boole lii rek la nee ñoom ñi koy defar ay làkkat lañu ay pël fuuta ñu ñaan président Abdou Diouf audience wax ko mbiru jumaa ja mu boole ma ñoom ni ma wutal leen financement ci pays arabe yi daañu fi ñëw altine seet si la indil la dossier bi nga seet noo leen ciy dimbale. la dossier bi nga seet noo leen ciy dimbale. ba ñu ñëwee mani leen. réewu arab yi nag yombatul léegi. ah yi nag yombatul léegi. dafa am sénégalais yu fa dem ba yàq. ndax dafa am sénégalais yu fa dem ba yàq. di yóbbu ay projet te du di yóbbu ay projet te dëgg. moo tax ku fay wut financement it dangay ngay muñ. waaye. am na fi benn sénégalais day. dégg naa mu ngi def mu ngi def lu baax. jumaa ci ñuy defar jumaa ci jàkk bàyyi ma laaj ko rendez leen ma ko rendez ñu dem seeti ko ba xam seeti ko ba ba ma ko laajee rendez-vous mu jox nu ko ma demee ma ne ko ñii day mbooloom jullit lañu nekk ca Kédougou ma ne ko ñii day mbooloom jullit la nekk ca Kédougou dañu am projet jumaa nag président de la république ni woon naa leen wutal financement. te xam nga financement ci réewu arab yi yombatul. dama dégg yi. dama dégg ni yaa ngi def lu baax ci jumaa yeeg jàkka yi. moo tax ma indi leen pour nga jëgg ci tuyaba. mu nuyoon teg ñoom ba àggal ni waa projet bi ñaata la. cent ñu ne ko cent un million. téeméeri benn. mu ni dinaa def lépp. dem leen. maam Khalifa ne kon fa tabaarakallaahu. sëriñ bi ba mu àggee nag ñu ne ma kaay fekkee julle ji. ndax yaa fexe ba mu taxaw. ndax yaa fexe ba mu taxaw. man tam leen nga jëm Banjul da am fa man leen man tam ñu nga jëm Banjul am fa daje international. nee Baye Khalifa kaay dem nga fekki julli. léegi nag la ma daaneel pire. maam Khalifa ne li ma daaneel pire. gaa jiital ma nag. gaa jiital ma nag. ma dem ci kër imam ma dem ci kër imam bi. ko mu yor barke boo xam ne. fekk ko mu yor barke boo xam ni. ba ñuy laata jóge ci jumaa ji di yegg si këram. ba ñuy laata jóge ci jumaa ji di yegg si këram. lépp lu mu war a terale rek mu ngi taxaw. lépp lu ma war a terale rek mu ngi taxaw. te benn néegu ñax lañ ko defaral. te benn néegu ñax lañ ko defaral. am na ci ñetti néeg. am na ca ñetti néeg. am ca saal. am ca saal. am cay salle de bain. am cay salle de bain. am ca benn véranda boo xam ni. am ca benn véranda boo xam ni. bu bëggee féexloo jaamu. bu bëggee féexloo jaamu. ca lay ca lay fa toog. fa lay toog. man loolu rek doy ma. man loolu rek doy ma. civilisation bu toll noonu. civilisation bu toll noonu. réew mu mépp nag agsi ci moom. réew mu mépp nag agsi ci moom. ba ñu teralee ba pare. ba ñu teralee ba pare. mu ni ma doom xam nga lu tax ma dollee gëm sa baay gëm sa maam. mu ni ma xa doom xam nga lu tax ma dollee gëm sa sa maam. mu ni ma bépp xale bu ñëw fii. mu ni ma bépp xale bu ñëw fii. ma gis la. ma gis la. ngay doxandeem. ngay doxandeem. ña ca ëpp. ña ëpp. diine du sell. seen diine du sell. la ñuy wut rek la ñuy soxla. la ñuy wut rek la ñu dëgmal. la ñuy wut rek la ñu dëgmal. waaye koo ci gis. waaye koo ci gis. mu boole la muy wut. mu boole la muy wut. ak diine bu sell. ak diine bu sell. comportement ba sell. comportement ba sell. boo ko laajee rek. boo ko laajee rek. mu tudd la Tiwaawan. mu tudd la Tiwaawan. tudd la Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu. boobu julli nag. mais boobu bind nag. lañ sëñ Abdou doon jox rek. lañ la ci doon jox rek. moom la ñu sëñ Abdou doon jox. moom la ñu sëñ Abdou doon jox. foofu résumé boobu rek. résumé boobu rek. laa ci bëggoon a def. laa ci bëggoon a def. ni jox nañu leçon morale. ni jox nañu leçon morale. ci ci. ñu defar ñu defaraat suñuy comportement. ñu defaraat suñuy comportement. ak ci wàllu diineeg. ci wàllu diineeg. tariixaak. tariixaak. meloog. meloog. jikkoog jikkoog. lépp lépp na ko. dugal na ko ci biir waxtaan yàlla nañ ci yàlla dimbali ne sëriñ bi yàlla na nga gudd fan ànd ak sa mag ji ak say mag fan wu gudd ak wér jàmm ak sutura sëriñ bi nee na kenn ku nekk jàng fatiha dajewaat ko salaatul fatiha ñu yéene ci sunu lépp nag zahiran wa batinan bismillah